dikkaate ci yi nga nar a liggéey ci combat bi nga dikkaat ci tuuti leeral ko askan wi. conditions yi kañ moom bi ci njëkk mooy suba suba na àdduna bi yëpp mobilisé wu ji Marius Ndiaye fête gu rëy fay am. waaw amul jël xaalis jënd dugg déedéet application la agricash tey boo ñëwee foofu joxe sa portable am ñu ne ko télécharger nga ñëw dugg ñu feetu ñun ñëpp. xam nga boo xoolee euh, combat bi dañ ko monté am na ay weer. bi combat bi monté am leneen lu judd muy exclusion wu Papa Sow ci écurie Fass muy benn chart deuxième charte bi mooy pour que Papa Sow euh, mën a bëree il faut que mu am écurie pour door a mun a am licence ñu tuddee ko affiliation ak leneen ak leneen xëy na les termes ne manqueront pas à l'intérieur ah ci la ñu ñoom organiser seen assemblée général def seen PV déposer ko de l' intérieur créer seen structure yàlla alhamdulilah rabil alamin loolu lépp passé nañu ko ñu gis ni nag jaadu na ñu daal di woote régulariser lépp dem jàll ci leneen daal loolu rek la amul leneen. ñu gis combat waaw yomboon na. yomboon na parce que pour être honnête bokkul woon ci suñu plan. suñu plan Tapha la woon ak Ama Baldé ñu waxtaanoon ci ba jubo ba dara desul lu dul ju joxe avance yi am na ci journaliste yu teewoon ci kër gi côté Ama balde changé de euh, d'option ñu nangul leen ko di sant yàlla it que toujours li ñu koy ñaan rek mooy lépp lu ñuy am na doon lu gën ci ñun lu gënul ci ñun bu mu nu ko jox. waaw ci loolu la ñuy sax di ko ñaan tey di ko sant yëpp ñu ngi gis ni mu ngi koy defal loolu mu indi bi loolu amee suma doomu ndey xam nga ñu dañu regroupé wu ci association nationale des promoteurs de lutte donc euh, ci la ma fàllu ne ah maa ngi doon dox Siteu Papa Sow président ndax doo ko jël ah ma rafet lu ko trop mu woo moom fàll woo père ba ne ko jox na ma accord donc combat bi ci deux heures de temps la taxaw waaw lu vraiment musuma taxawee combat musuma taxawal combat bu yombee noonu daal. bi la ko Fallou jox fekkoon na mu conclure ak ñaari ménageries yi ba pare wala def laa xam nga man du ma immixé wu ci ay relation ma Samba ma Demba xam naa ne daal bi komba bi amee jafe-jafe woo na ma nee te ngaa jël combat bële donc ma rafetlu ko lool dox ko bu féete boor. on voit benn question par rapport ak formation bi moment yi ñu nekk situation ak face. ndax jigéen wala jigéen yow est-ce que par rapport naa moom ak moom moment est-ce que dëgg dara ko woo moom situation bi xool évolution bi man ma ko doon naka doon ne nag moment bi. j'ai pas compris. moment yi ñu situation ak face ñu am problème ak face. yéen xam nga moment fekk na daal démarche ko comment ko bare. donc bu ko xam est-ce que instant boobu nan nga am ban ban relation am naa est-ce que yàlla ñu doon dégg ndax yaa ngi doon woo xool am évolution situation. non. musuma ko woo war na yàlla ak Cheikh na Cheikh Saad mosuma ko woo mosuma ko ci nemmiku parce que suma yoon newul ci loolu c'est son dada donc c'est à lui de trouver ses solutions man li ma mun rek je suis un investisseur un bailleur tu m'intéresses ma opte ci yow leneen nag li nga xam ne sa environnement la c'est à toi de le bi officialisation combat bi amu ci benn retard lan la combat bi taxaw na ñoom li ñu warloo ak ñoom def nañu ko on passe à l'acte administratif rek amul leneen li ay formalité la rek am déet waaw non cest dire que il faut aussi que nga comprendre leen na combat yu ci bari comme choc yi dañu koy monter bu ñu demee tey mënoon naa bàyyi ba làmb ji des vingt vingt et un jours ma ñëw deux semaines ku am na combat yoo xam nañ dañ ko régulariser ma ñëw régulariser ko mais j'ai vu que nii je dis bien Mbodj bind na ci keneen bind na ci pour libérer tout le monde dafay jaadu rafet ñu libérer leen yéen ñëpp waaw xamal leen ni bis sàngam danañu bëree combat bi mu jeex man ma dem ja def leneen daal ah. mais innovation bi Pa Abdou indi ci làmp parce que keroog dégg nañ nga wax ci première face à face je pense que comme genre wàllu open press beeg yeneen affaire yi nga xamante ne tey xëy na bëgg nga ko indiwaat ci événement bi ni ndax Pape Abdou pare na ci pour satisfaire sénégalais carrément parce que ñu ngi koy xaar. waaw liñ la wax ci ñun programme du ma waxan benn ñaar awma jot bi. Mhm. te it tollootuma duma nit ku ñuy defloo déedéet ça c'est pas apte mhm. lu ma la wax lu ma gëm la lu may def lu ma man la. Mhm. du dëgg innovation lépp man Abdou mënuma def lu mësta am ci làmb promoteur yëpp jaar nañu fi parce que nag dafay jaadu tout euh, euh, ñu xam ni nag làmb làmb rek la mais li ma la wax nit dina ci am dana ci am am na sax yeneen yoo xam ne danañ ko ci yokk bu dee yaa ngi këyit gi ma la joxoon boo ko téye nga jël ko comme li ligne de conduite comme sa conducteur comme ni ngeen koy waxee di nga gis yeneen yoo xam ne dina ci greffé wu. par bi dama leen waxoon bi ñu dajee ci hôtel bi que amul luy gratis xam nga loolu euh, wax la marketing la cest a dire que aujourd'hui man je suis avec des partenaires ñoo may jàppale pour ma tëgg am Euh, am na noo xam ne bu ma ko organisé làmb bi mën ngeen ci gis sax lenn loo xam ne du leen neex yéen mooy que ni tey bu ma jëloon Siteu Papa Sow def ko fii ñu ngi fii stade Léopold Sédar Senghor fu waay neex daal di daw dugg mais finalement c'est moi-même qui crée l'insécurité dans cette affaire la donc dafay jaadu ci li nga xam ne man ci laa nekk di ci yëngu ma créer ay astuce astuce bi moom mooy lan ku nekk yéen a ngi ak seen smartphone yéen a ngi ak seen ay ordinateur moom ngeen di liggéeyee day jaadu ngeen télécharger Agricash boo liggéey bu ñu bëggee jëflante ci problème mu xaalis wala ngeen bëgg ko jëflante ak keneen vu que sumay sponsor lañ mais ma def ko gratis. loolu boo ko indee nga télécharger ko nga daal di dugg sinon boo bëggee bàyyi Marius Ndiaye ah pënd beeg ma Samba ak ma Demba ku départ dal di ñëw dugg. finalement c'est le promoteur même qui est le maître de l'insécurité dans cette affaire donc am na yeneen du benn bii rek ñu ngi jëmaat ci beneen ndaje boo xam ne c'est beaucoup plus classique ci beneen hôtel lay doon diine lay doon walla leneen lay doon ñu amaat ci beneen taxawaay beneen mbir am na it ay mbir yoo xam ni dina am ci ko ñu Siteu am ci ko ñu Papa Sow yaa ngi dégg wax baax waaw maintenant kii dégradation moom ma fi tax a teew xoolal lu ñuy yabe doomu aadama duma ko may nit mm. lu ma moom it danaa ko jël waaw man gaynde laa lu ma moom bu dee fit rek yàlla may na ma ko dama koy wekk ji kon CNG moo génn këyit ne bala ñoo def dara dafa bëgg ñu nekk dans les rangs en tant que président des promoteurs je dois être parmi les premiers qui seront dans les rangs loolu moo waral suma teewaay tey parce que faut pas prêter le flanc ñoom c'est une instance dirigeante mais sama ay moromi nawle lañ ndax dam leen war a may bu ëllëgee bu ñu toogee ci kanamu taabal ji bu ñu waxee man du ma wax réew mi ku wax ma wax dégg nga ma loolu rek moo ko waral joxante nañu cër trop on complet mais suñu génnee seen ay directives dafay jaadu nekk yoon ñun ñu respecté ko malgré qu'on a des rapports yu baax yu am solo mais nag nañ leen respecté charte yi CNG e teg waaw bala ñu fi jógee danañu jox manager bu nekk convocation suba ñu xam mbër mu nekk suba ban heure lay ñëw par rapport au face à face en tant que tel. lan mm, mm. la Pape Abdou Fall prévoir en tant que tel par rapport au face à face. bon euh, moment la boo xam ni. Euh, c'est un show ah c'est un méga show il y aura la présence de Pape Diouf il y aura Ngaaka Blindé il y aura Diamant Express il y aura les troupes folkloriques et autres là du dëgg il y aura ça sera une tribune aussi pour mes partenaires de délivrer leur message ça sera à, aussi une tribune pour Pape Abdou Fall yow lii lan la. sa bopp naa la. Ah. naa la nag sa bopp naa la. vous avez dit l'autre jour que. da ngeen di seen naan mbër yi dañuy sème le désordre mais vous êtes les premiers à semer le désordre parfois allez on passe loolu. non dama ko doon kii rek. xam nga comme léeg-léeg da ngeen ñu koy jam léeg-léeg day jaadu. man moom noonu waaw donc euh, day jaadu mu doon tribune Pape Abdou Fall aussi commencé woon nañu ci A xëy na doon jëm Z xëy na defagum nañu A B ça sera l'occasion de ni F li ci tegu lii lii lay doon date sàngam lay doon nii lañ ko bëgg a defee ak nii lañ koy defee. arène nationale ñu ñu ngi nii. suuf comme cumkaay ban passé violence bi. Alioune Seye kii Alioune Seye ñàkk jariñu. waaw waaw est tamit yow yaa ngi kii yaa ngi bàyyi xel loolu ak tamit li nga xamante ne mooy matukaay bi seen gis na loolu ah ñun duñu ay amateur ci li ñuy def de dégg nga nous sommes pas des amateurs ci suñu ay domaine d'activité du tey la ñuy door a organiser grosse affiche waaw Modou Lo Gris Bordeaux jaar na fi Modou Lo Lac de Guiers Siteu euh, këca euh, des guy gi ah Boy Niang de Guiers Boy Niang guy gi jaar na fii ah. booy guy garga it jaar na fi loolu lépp donc ñun bu ñuy jóg bu ñuy jóg avec la grosse artillerie voilà. ñu mooy xorom si kooku mooy ndax géej gi am na ndox yow. waaw. Pape Dou gannaaw bi ñu la nuyoo Agricat suba. waaw nga war kaa expérimenté. Hmm. supporters yi ñëw kenn ku ci indi sa téléphone ñu télécharge nga am possibilité dugg ci stade bi. Hmm. mbooloo moomu bu fa dajee. est-ce que dana gaaw gaaw boobu ba permettre nit ñi mën a feesal stade bi. bon xam nga formule la. Hmm. du nekk il faut comprendre les choses ah. c'est un système de filtrage. Oui. qui sera mise en exergue. Euh, am na ñu jot a téléchargé. am na ñoo xam ni waa Agricash dinañ taxaw foofu boo ñëwee ñu téléchargé la nga daal di ñëw dugg donc. Euh, dañuy xool y aura la police y aura des de la sécurité privée ñu xool les façons nous sommes suffisamment outillés pour voir et analyser en profondeur euh, euh contexte bi li mu laaj. kon supporter supporter yi lay seetaan supporter Papa Sow yi supporter Cité yi bu ñu ñëwee nañu indaale seen téléphone sans connexion wala ñu jëndaale seen connexion. connexion ba dañ ko fay fekk gratis. man duma je je fais pas à moitié déedéet je fais pas à moitié y aura de la l'ADSL gratis boo xam ni y des équipes yoo xam ni dañuy ñëw toog téléchargement rek mooy liggéey da ngay ñëw joxe sa téléphone ñu télécharger la nga dem jaar dugg dem sa yoon tey làmb ji noonu lay demee c'est-à-dire que je ma me à chaque fois que je me déplace avec Agricash je me déplace avec de l'internet gratis